murtajan minnatun lana jariun billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy seetaan te di ñu déglu ci seen émission bi ñu tudde madinatu ilmi ñu di amale ci seen 24 actu ñu dellu siwaat tey ci jataay yi ni nga xam ne dañ koy amale ay bis jot ginnaaw bu leen nuyoo siyaare leen ñaanal leen ndokkeel leen di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm ak tawféex di siyaare mbokk jullit yëpp bàyyiwunu kenn góor ak jigéen mag ak kon tey ñu dellu si ci tomb bi nga xam ne fas yéene nañ koo waxtaanee fàttalente bi ndax yonante bi sallallahu alayhi wasallam moo nu digal ne dee leen fàttalente àddu ci lu bare bare bare ndax fàttali dafa loo xamante ni nit ki daf koy jariñ rawatina bu dee jullit boo xamante ni jullit bu ngëmam dëgër la tey nag ñu fas yéene waxtaanee lu jëm ci yomal xiyaam ci taxawaay bu metti bi taxawaay bu loolu nag xam ngeen alxuraan moo nu ko nettali. am na te lool naanu taxawaay am na fa boo xamante ni lu ko jiitu sax danañ def benn ci nit ki buy faatu buy faatu xam ngeen ne nit ki su fekkee dafay faatu jamono yooyu mu toll ci sukuraat sukuraat lu méttee méttee méttee méttee la yonent bi daana wax ne sukuraat méttiwaay bi jégg naa dayo asakaraatul mawt maanaam dee buy ñëw yonent bi daana muslu sax wala daana ñaan yàlla mu woyofal ko sukuraat daana wax ay sanaa ba sukuraat métti na métti na métti na métti na loolu nag li tax ñu war koo fàttali ko diggante boobu lu bari dafay mën a yàqoo mooy nit ki mën naa nekk ab jullit bu tolloo ci sukuraat ak njullitam deñ te li ko waral mooy sukuraat su métti ma wér xam ngeen ne nit ki su fekkee ne toll na ci sukuraat yàlla dogal nit nekk ci wetam li mu ko war a digal moom nit kooku nga xam ne toll ci sukuraat waaye gis na ne nit ki mu toogal li mu war a def mooy ci wetam. di tudd yàlla maanaam di tudd baati seede bi tudd laa ilaha illallah du ko wax ne ko wax ko de ndax jamono yooyu wax nañ ne nit ki seytaane day dikk toog ci wetam di ko wax ne ko waxal dee naa ci diine yooxut wala diine nasaraan fekk ne nit ki dina mar mar woo xamante ni wax nañ juróom-ñaari géej bu ko bëgg woon lu ko doy sax am nga lax jamono yi iblis lay nekk ci wetam naa wala diine nasaraan ma may la nga naan bu ko defee nit ki foofu bu fekkee nit ko am ndimbal la nga wax naa ko déedéet déedéet yow nag bu fekkee yaa ngi koy wax naa ko waxal tutal baati seede yow allah ilaha illa boo déggee déedéet jooju da ngay def ne yow lay ñàkk ci moom yaakaar te loolu baaxul ci jullit nit ki suy dem yaakaar rek lañ ci war a moom waaye li war mooy yow da ngaa war a dox no topp ko nekk ci wetam di tudd yàlla ak a jàng alquran defee loo wax moom dina ko mën wax waaye boo naa ko waxal te yow amoo kas bu gis seytaane boobaa ñaaw njort lay doon bu ko defee nit ki suñ ko waxee waxal loolu mu wax muy wax baat yooyu nga koy wax mu koy wax ba nga yëg ci sa bopp yëg ni kii kat daan na sukuraat nag roogi tàggaliku na ak kii ndax gis ngeen nit ki su tëddee suy sukuraat bët yi daf koy xool ci kaw foofu roog yi liñ ci wax borom xam-xam nee na roog yi day fitti mel na lu jëm asamaan ndax nit ki diggante ñaari matières yi ñu ko defaree mooy roog yi ak yaram yaram mi ci suuf la jóge woon roog yi comme ca fu sell la jóge woon ca mën a laa ak ci sunu borom ruu gi day fittiwaat moom dem ca kaw yaram bi moo tax jamono yi da ngay gis nit ki day diis diis diis bu diisaay bu méttee méttee jamono yooyu nag saa yëgee ne nit ki ak su tolloo ci waxtu woowu tamit yow war ngay tàbbal ndox ci gémmiñ jël ndox di ko def ci gémmiñ gi ak bët yi ndax fan yooyu day mar-mar yi mu wax mu jëgg dayal boo xamante ni ndox rek lay bëgg ndox lay bëgg jamono yooyu. li mu doon def ci àdduna bi lépp lépp ay image lan ko koy wanaan mu toll ci sukuraat day mel ni film bi nga xam ne dañ koy rombali sa kanam nga gis li nga doon mooy yàlla li doon jaamu yàlla li doon te da ci am jëf yoo xam yow ko bëgg gis sax ko defee nit ki foofu lay toll bu fekkee nit ki wàcc na ci sukuraat faatu na dem boo faatu ba nga yëg ne faatu na yow li nga war a njëkk a def yow mooy bëtam yi danga ko delloo waat jël sa delloowaat bët yi ndax bët yi day teen nii bu ko defee bët yi li tax muy teen noonu mooy roogi moo fitti jëm asamaan bët yi di xool bu ko defee bu roogi tàggale ko yaram bi nag yaram bi daal di reposé wu diis bëtam yooyu mu doon xoolee du mën a dellu bu ko defee yow mi nekk ci wetam ak li nga ko war a wax bu ko wax mbaa dénkaane nga dara loo bëgg ñu defal la ko bu ko defee su la waxee foofu nga bind ko wala nga denc moo tax yonent bi salaa salaam daana wax naa dee leen dénkaane dee leen dénkaane Omar wala. Abdullah ibnu Omar nee na mosumaa toog mosumaa tëdd di nelaw te ma ne dénk ko sama mbir ak sama mbir maanaam bis bu ne mu jàpp ne tey suba la war a faatu wala ngoon bàyyam Seydina Omar danaan wax ne julli bu ma julli damay jàpp ne julli tàggoo la julli la koo xamante ni du ma julli waat su ma jullee tàkkusaan damay jàpp ne du julli timis su ma jullee timis ma def ne du julli gee moo tax ñoom dañ daan dénkaate julli bu ren ndax li ko waral yow mën ngaa julli tàkkusaan ba noppi wala nga julli tisbaar ba noppi bu takkusaan yi ñu jullee la mën ngaa julli timis ba noppi bu gee jotee ñu jullee la moo tax da war di dénkaane boo tëddee di nelaw tamit ndax nelaw ak dee bu ndaw la xamoo di nga yeewuwaat xamoo doo moo tax nit ki war na guddi bu nekk saa buy tëdd woo nit ne ko lay dénk sama mbiri àdduna yi nga xam ne su ma fi jógee su ma fi defee nangam jullit noonu la def su fekkee nag ruugi wadd na ba mu dem. yow mi nekkoon ci wetam muy sukkuraat li ngay def mooy da ngay jël bopp bi gémmañ gi xam nga daf koy ŋam day ba da ngay jël benn morceau takk ko ci baat bi nga takk ko ci gémmañ bi nga xam ne gémmañ gi dina ñebale ko noonu la mu def bu ko defee nga wut am morceau fexe ba summi yére yi mu soloon nga summi ko ndax yére yooyu dañ ko daal summi bu ko defee wut mbalaan lu jot ñu sànge ko wut kii bu ko defee biir bi xam nga def dafay jóg nga war a bës tuuti biir bi aération bi nekk génn ñu laabal ko pour bu ko defee néew bi su faatoo nag li itte ci itte ji gën a farata ci moom mooy ñu daal dem suuli ko denc ko defatul daal bu demee ba yëg ne faatu na te mbañ cee gaawtu ndax nit ki mën wala soit mën nañ koo teel daal di koy daal di teel a producteur rek dem faatu te fekk faatu ndax fii gis nañ ba tàyyi wala dégg nañ morgue yi ñu fanaanal ci ab néew bu suba jotee ñu gis néew bi yeewu loolu lépp gaawantu la ndax nit ki mën naa xam-xam goo xam boo amul xam-xam ci xam nit ku faatu mën ngaa def lu faatu bu ko defee ñu gàttal foofu li taxoon nu jóg mooy ëllëg yamal xëyam taxawaay ba juróom fukki junni at wala juróom fukki at yoo xam xamante ni juróom fukki at yoo xam ne dana toll ci ñun limu at yu bare bare bare nga taxaw nit ki day taxaw ba aw ñaqam da koy làpp am na ñoo xam seen bàkkaar day toll ci seen i tànk ñenn ñi ñëw ba ci seen i moom ñenn ci seen biir ñenn ñi ñëw seen dënn am noo xam ne day ñëw ba seen pour am ñoo xam ne day ñëw ba ngalaat leen ci seen gémmiñ am ñoo xam te ne seen bàkkaar da leen di mëdd seen day dem ba tiim leen ci seen i karaw nit ku nekk daal na doon jaamoo yàlla na nga ko ragale woon noonu la sa bàkkaar di toll nga taxaw tàngaay yu ñu wàccee jant bi jant bi jege lool lool lool ba nit ñi jullit yi ak ñi dul jullit ñëpp dañuy ngéejoo ñu àtte leen ñu dem am na ñu jullit yuy saalit sax yu wax suñu borom te taxawaay bu yàgg bi te nga noo àttee ñun bu ñu dee dem sawara sax ñu dem fa ndax taxawaay bi dafa métti dafa métti dafa métti dafa métti bu ko defee foofu nag dañuy daal di songu yonante yi yonante yi la ñuy daal di songu yonante bu nekk ñu wax la pour nga ñaan ci suñu borom ndax suñu borom day mer mer moo xam ne jégg day kenn du ko ñemee jege bis boobu daanaka kenn kenn kenn ku koy ñemee sax bariwul bu ko defee nit ñi ñooy dem nag di ñaan interprète di wax ne yonante si dem leen aw tinu yéen la yàlla yónni woon ci nit ñi dem leen tinu nit ñi nee na yonent yàlla aadama la ñuy njëkk a dem mu demee na ko ah aadama yow de yaay bàyyi yonent yëpp yaay aboo basar te nga dem ci suñu borom nga wax ko mu baal ma nee na yonent yàlla aadama mu njëkkee da leen do ah nafsi nafsi man sama bopp laa tal ndax yàlla daf maa bindoon dugaloon ma àjjana ma bu lekk suñu garab gi ma dem lekk ci loola xaw ma meral na ma ci bu ma demee man na ma cee wax dara te ngeen a dem seeti Ibrahima wala ngeen seeti ndax mooy duwaaye yonent yi ndikkee yonent yàlla noo ñu ne ko noo taxawaay bi metti na suñu borom nga wax ko ko mu jéggal mu taxawaay bi metti na de nee na noonu leen ah tey suñu borom mer na de tey dama tey mu taluma dara dara sama bopp rek laa taal sama bopp laa taal ndax man damaa mosoon di woote woote bu yàgg yàgg yàgg ñi ma nekkoon néew ma ci gëmoo damaa mujj rek ma wax suñu borom ne ko rabbi laa tasal alal ardi minal kaafiriina dayyaar maanaam ñii nga xam ne daal ay kàccoor la ñuy doon te duñu gëm bu ñu juree ay nit yi ñeneen jur duñu gëm ñoom ay yéefar lan yoo xam ne daal ñu weddi lan la duñu gëm mu weebu nga rey leen rek ñu nopp lu moo gën yàlla daal def loolu daal di anam ñëpp ñëpp pour utiliser rek ku fa dugg ci yoon woote moo bi rek ñu rey la ñaan googu nag te suñu borom dafa waxoon yonante yi ne ko ku nekk am nga ñaan goo xamante ni boo ko ñaanee ma may la ñaan rek yonent yàlla noonu nag ñaan googu la yore woon bi ko ñaanee yàlla alal ñëpp mu ne looloo tax man du ma mën a dem ci suñu borom ñu ne ah kon nag song yonent yàlla Ibrahima Ibrahima moom xaritu yàlla la yàlla moom dafa wax ne wa taxasa Ibrahima xalilan Ibrahima mooy xaritam ginnaaw mooy xaritam dem na fa dem nit koy ak xaritam mën na Ibrahima ne leen ah indi maa dem ndax yàlla am na bakkaar yu ma def yoo jàpp naa ne bu ma demee yooyu mooy gën a itteel yàlla ci may ma koy ñaanal intervention te yooyu moom a gën a ñor moom laa tiite nii ndax man damaa mosoon bi sama bàyyi ak sama mbokk yi doon jaamu ay xërëm bi mu demee def xërëm yu bari ma fekk xërëm yi fa nekk ma rey xërëm yépp bi ma daanee xërëm yëpp ba noppi nag dama jël xërëm bu mag boo ma wékk ko sémmiñ bi ma doon toje xërëm yi bi waa dëkk bi laajee ne andi xam naa ne Ibrahima ko def ñu dëkk ci Ibrahima ne ko Ibrahima yow yaa sunu xërëm yi yaa ko rey ku baral Ibrahima ne leen ah man dafa mu ko waree laaj leen yàlla ñu mag bi ngeen wékk ji wékk daa mel ni moom moo rey xëram yëpp yu ndaw yëpp ba noppi wékkoo semmañ yi ñu ko ah liggéey mënu nga ne na loolu moo ko tiital ak ko laajoon boo xamante ni tawriya kii nga àndal kan la euh, te fekk ne ki mu àndaloon kii la mu ne sama soxna la te fekk ne du woon soxnaam. waaye Ibrahima li mu ci jublu woon tawriye la ci laaj boobu xam naa yonantu du wax lu dul dëgg waaye loolu lépp ci tiitaange boppam la ak moom bi muy wax ne leen laaj leen yàlla ju mag ji boobu yàlla la ci jublu yàlla ju mag ji la ci jublu mooy boroomam loolu la jublu woon ak bi mu daan jaamut bu weer bi mu ne lii mooy yàlla yan taay mu ne lii mooy jant bi yooyu mu daan teg yàlla ngir bëggoon taw bi yooyu la jàpp ne bàkkaar la mu ne ah ñu daal ne nañ nan dem mu ne te ngeen a dem ci yonent yàlla Isa Isa bi ñu dikkee ci Isa ñu laaj ñu ne ko ah, yow de yàlla ginnaaw yow am nga ndey te amu bàyyi yàlla moo def leeram wol wu nga doon bindeef kon jege nga yàlla te ngaa ñaan yàlla suñu borom mu xet loolu ci taxawaay bi nee na bu nu dikkee bu nu ko waxee yonent yàlla Isa ne di wax ah man nag di ñëw maa dem ndax man sama ginnaaw bi ma fi jógee. ñi nga xam ne man lañ doon tuddoo ma doon wax ne yaay doomi yàlla yaay yàlla di teg sama yaay di mu jaamu loola ko mu yàlla mer na ci ba dina ma ko topp wala lu ma ko topp donte sama ginnaaw la woon loolu daan tiital na ma boobaa nag la dikk ci sallallahu alayhi wa sallam muy yonante bi nga xam ne mooy yonante bi nga xam ne innama ana rahmatul muhdaal nee na man yërmande daa ci yéen mooy diggante euh, ki nga xam ne diggante rahman ak rahim ko bi nga xam ne moo doon yërmande bi nga xam ne làmboo yërmande ci àdduna ak àllaaxira ñi du jullit sax yàlla def leen yonante bi daf leen am bën aw kii mooy moo tudd moo tax ñu tuddee ko raxuufu raxiim yonante bi salaa salaam noonu lañ ko tuddee ki nga xam ne euh, suñu borom xam ngeen ne rahmaan ak raxiim mooy rahmaan mooy yërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi ak ñi nga xam ne ñooy ay jullit ëllëg ñi nga xam ne du nit jullit rahim ci lay am yërmande moo tax yonante bi ëllëg taxawaay boobu yéefar yéen ñu du jullit ñëpp seen taxawaay yonante bi ñëw def intervention bu dikkee ci kanam suñu borom day fekk suñu borom mer lool bi salaa salaam kañ ko tagg suñu borom kàbbar ki moom julli kañ ko sëkk ay bëti woomam daal di sukk daal di sëkk joom di julli suñu borom ne ko looy def nii mun a xanaa màggal la rek mun a ko sikkil tey du bisu julli tey du bisu julli yonante bi si gël nga wax li nga bëgg ma defal la ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam day wax ne ko li ma bëgg mooy ummati ummati sama xeet wi sama xeet wi sama xeet wi moo tax borom xam-xam yi ne aaya bi gën a dal xel ci ci ci alxuraan mooy wala sawfa yuxtiika rabbuka fatarde nee na yonante bi suñ borom la ko wax ne ko dinaa la jox ba nga ngéejal borom xam-xam yi firee ko ne ko yonante bi nee na moom feek nit bu xeetam yi dugg nu àjjana du doyal tax ñu ne aaya boobu moo bokk na ci aay yi gën a dal xel ci ay alxuraan yi bis boobu ci la yonent bi salaa salaam suñu borom jox ko ràmm wu mag ma ràmm wu mag mi foofu la ko suñu borom di joxe moo tax yonent bi salaa moo doon ki xam ne moom ëllëg ajjana moo njëkk a dugg ci bunt yi te ajjana yi juróom-ñetti bunt la wax na ne bunt bi ci gën a bunt yi ñu ngi toll bu ci nekk daanaka toll na ci benn buntu àjjana rek am na quarante quarante cent quarante kilomètres mooy benn buntu bu nekk buntu àjjana buntu àjjana bu nekk tolloon na ne cent quarante nga xam ne nit ñi amul rajo la boobaa nag nit ak jinne ñëpp koy ñëwandoo ñëpp koy amul kenn koo xam la ñàkk gis wala du la xam dina ñëw ci nit tikk ba ci lexam mu dikk ne ko yow de ba ngay def nangam gisoon naa la ba ngay def nangam nangam. ndax kenn yëgoon nga ko mun ko dee mu ne ko na ma la suturoo woon foofu ni laa lay suturoo loolu nag li tax ñuy nettali lii nag mooy xam ne ñun ñëpp dañ fiy jóg te yàlla lu mu wax dana ko def te yonante bi salaa salaam mi nga xam ne mooy kii da daan wax bind sama tàndarmaa ngi sama tool yaa ngi loo bëgg mënuma laa defal lay sa digganteeg sa borom xanaa kasaratul salaate nee na lii tax ma dox sama diggante yow daal mooy bari leen looy julli julli bari looy sujjóot kon mbokk yi nga xam naa ne lii taxawaay la boo xamante ni amul kenn ku ci mucc kenn du ndey du bàyyi du doom du kilifa koo xamante ni mucc ca taxawaay boobu c'est comme yi nga xam ne óolul asmi ci lan bokk juróomi yonent yi ñoo fa tiit waxantuma la ak tax kon ñun ñëpp nanu wéeru lii tuddoo ko ne mooy sa sëriñ itam lam ko war a dimbalee mooy la yonante bi digloolu faatu bi bu mooy nga bari looy julli bari looy topp ndigalam kon nag mbokk yi na nga góorgóorlu ci jaam yàlla kenn du ko caaxaane ku tooñoon fii rek président da nga problème bu rëy ngay yendoo gis ngeen ne intervention pour fi jàpp tëj la kaso intervention yu bare bare di nga dem ci mu ne la ah, foofu de moom mënuma xanaa bu ñu demoon ci diw sànga c'est nii lan la koy defee ci àdduna ba kere ñuy àgg kenn du ci mën daal da am gi ñoom na dañ leen di tëj sa seen biiru dund kon mbokk yi ñu delluwaat xam ne yàlla moo bind te bi mu nuy bind ñun ñëpp lim nu wax leer na amaa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budu jaamu nu moo tax ñu bind ko jaamu bi du moo waral tax sunu àjjana waaye nag nit ku nekk la ngay def te nga di yaakaar yi sant ñëpp ci dëng ñu koy jégalu di ñaan yàlla nu yàlla defal sunu kër àjjana doon kër yu sedd yàlla na nu yàlla dugal ci àjjana yi Firdaws yàlla na nu yàlla na nu yàlla teg nañ ci siraatal mustaqim nar gan nu ci diine ma doon ci mën a génn ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, Serigne Baye Moussa moo nekkoon ci caméraman bi ak Serigne Fallou ak Seexuna ki nga xam ne moo nekkoon ci monteur bi muy Soxna Fadi Niang ki doon réalisé émission bi Soxna Awa Ndiaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jox daje ci yeneen i détails asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu murtajan minnatun lana jariun